dolalal li nga moom Supersonics suma tabaski ren neex na Gamsobis with Kalilu Banjang every Saturday from 8 to 10 p.m. You want to know about the Gambia entertainment industry? You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the governance and management of the arts associations. The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them, and most importantly, offer solutions. Euh, mbokk yeeg euh, xarit yu Gambian Talents TV jërë jëfati euh, ci ànd bi safoo geeg kolte gi ñu am rek mbégte saa sune ne rek nar a toog fii waxtaan ak yéen ni ngeen ko gën a xamee rek seen show bu mag bi di biir Gambia show nu muy amee ngeen ci doon ànd ak ci ñu ay ndaw ci waxtu bu ne bi yoon nag ñu fas yéene ñëw defal leen ko tey jile Mouhamed mbay Garmi. Euh, rek bokk ci euh, kër gi le nar a toog euh, waxtaan ak yéen comme ni ñu koy defee rek biir Gambe soo moom lépp rek lañ fi waxtaanee loo xam ne soxal na askan wi soxal na tamit ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci biir réew mi wala fu waaye rek mënti nekk tadik Gambien moo xam nga nekk Sénégal moo xam nga nekk ci diaspora bi ak foo mënti nekk. xamal ni euh, euh, ci nga bokk waaye laata loolu euh, comme niñ ko daan amee nag dañuy jaxasoo ñi nga xam ne ñoo seetaan mooy ubbi bu mu jokkoo gi ñu mën a wax ak ñun tey jilee nag du am waaye dañ ko rek lépp Euh, ba beneen yoon euh, dinañ ko defee euh, nu mu daa amee bi yoon nag ñu tànn ci ay thèmes yu bari yoo xam ne dañ ko waxtaanee loolu rek bi ko njëkk nag mooy diggante Sénégal ak Gambia ndaxte it ku wax Gambie wax Sénégal da bañ nañ sax ba dañ nan ka Séné Gambia loolu yëpp dinañ ci cof aslëf daal di ci rek waxtaan waaye rek dinañ leen dig daje suba bi nga xam ne mooy gën a ngand ñu defal leen ko comme ni mu daan amee rek bokk kook muy man wala muy keneen ndaxte biir Gambe soo moom euh, ñi ci kër gi euh, ñëpp ci am wàll ñëpp koy def ndax euh, yëpp yëfu ñëpp la lu ne ku ne nga ci. tey jii nag ñu fas yéene waxtu ne diggante Gambie ak Sénégal ku ne xam na diggante Gambie ak Sénégal li ci nekk mooy. Euh, jàmm euh, li ci nekk mooy euh, salaam li ci nekk mooy demlante li ci nekk mooy dikkalante ndaxte ku amul fii yaay am nga fële am nga fa am nga yaay fële ku fi amul fii papa am nga ko fële donc muy affaire boo xam ne demlante ak dikkalante moo ci am waaye it mu nekk lu nga xam ne rek moo di jàmm damay rek daal di fàttaliku benn waxi kilifa gu mag goo xam ne nekkoon na fi sax njiitu réew file ci Gàmbi di Yaya Jammeh nekkoon fi njiitu réew bu Gàmbi ci ay atam mos na wax ni euh, Gambie ak Sénégal ñaari état yi maanaam ñaari government yi mën nañoo am problème waaye nit ñi ñi fi dëkk moom dañuy continuer di am jàmm ba faw te loolu rek li koy firndeel mooy tey jile euh, euh, kan moo fi nekk mu di président his excellency Adama boro fële kan moo fa nekk mooy his excellency président Macky Sall muy loo xam ne démb ñoo ñu nekkuñu fa woon kon loolu Sénégal day tudd Sénégal Gambie day tudd Gambie loolu nag ñi ci war a gën a bàyyi seen tax diggante boobu gën a ñoŋ euh, mooy euh, li nga xam ne rek moo di euh, saabal gi maanaam bu ñu waxee saabal mooy media ci wolof léegi loolu ñoo ñoo ci war a gën a dox seen ak kem kattan ba gis ne rek jàmm jooju am na ba gis ne rek dem jëflante googu noonu mu ñoŋ daal di rek am euh, ci ñi nga xam ne rek ñoo di diggante Sénégal ak Gambie euh, ndaxte boo demee biir Sénégal euh, danga nga fay fekk ay Gambie yu fa nekk di dóor waar ci domaine bu ne ñii ñi nga fa nekk doon ay ñi nga xam ne ay ay ay mécanicien leen maanaam ay fiite leen ñi nekk fa ay kapinta ah ñi ku nekk rek ak la fay liggéey ñu am fa jàmm bay bëgg a dee boo ñëwee tamit fi nga xam ne moo di Gambie fii di nga fi fekk ay sénégalais ñoo xam ne ñi ngi fi di daan seen doole comme rek ni ko Gambien yi di daanee doole foofu ca biir Sénégal Sénégal euh, ñoom it ñu nekk fi nekk fi nekkee fi li nga xam ne rek moo di euh, jàmm waaye euh, li ñuy wax rek peccum liir bu neexee ndeyjaa téye ca mbagg ya boo déggee ma wax lool dañ bëgg ñi nga xam ne rek ñoo ñu jiite muy ñi nga xam ne ñooy gouvernement bu Sénégal maanaam government of di uh, of Sénégal ak government of di uh, Gambia ñoom ku ci nekk rek war nga ci bay uh, waar ba nga gis ne jàmm jooju sax na ba gis na rek jëflante boobu saa suñu ko soxlaa rek dina daal di rek ñoŋ ba ci tukki yi parce que fi may bëgg a waxee mooy gis nañ jamono yi li nga xam ne rek moo di mbas mi daal di wàcc ci àdduna wérngal këpp daal di rek téye li nga xam ne moo di koom-koomu réew mi téye koom-koomu àdduna bi ba nu mu daa doxee doxewu ko waaye da gis ne koom-koomu àdduna yu mu téye noonu réew yi nga yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci koom-koomu at réew mi euh, ci àdduna bi ñoom la gën a sonal euh, malaak euh, réew yi nga xam ne dañoo digg doomu ñi nga xam ne seen koom seen koom-koom fi ñu ko yaakaaree woon mooy dañu jéggaane comme ñun fu ci mel ni gàmbi ñun suñu yu bëree bëri dañ koy jéggaani dañ koy dem jëlee ji Angleterre wala ñu jëlee ko France wala ñu jëlee ko feneen ak feneen ak feneen Sénégal it gas kazalika naka noonu ñoom it seen yu bëri dañ koy daal rek jéggaane problème yi bu amee mbas mi wàcc na tàgguwul kenn ndax mbiru yàlla la ba mu wàccee tàgguwul kenn ci weer wi wala lii dina am ci waxtu wi dafa jekk saay rek daal di rek euh, tab bi euh, ci àdduna bi euh, daal di rek sonal ñëpp waaye dafa am ñu gën a lottal comme ni ma la ko waxee bokk na ci Gambie bokk na ci Sénégal waaye boo gisee ma indi waxu mbas mi mooy ba tey rek pour wax ci diggante Gambie ak Sénégal ca nekkin nu mu war a ñoŋee seen diggante nu mu war a neexee ba bokk na ci bu yu mel ni amee nan lañ war jàppalante maanaam nes def ba indi ay saafara ci li nu nga xam ne ñoom i neen ñoo koy lëkkaloo xam nga lëkkaloo ba pour mu gën gaaw dafa gaaw gaawee ca ña nga xam ne ñoo ŋànk euh, li nga xam ne rek moo di bopp ba ku ci mel ni nguuru Gambie ak euh, nguuri rek euh, fi nga xam ne rek moo di Sénégal lu tax ma wax loolu ndaxte tëj nañ frontières yi bi mbas mi ñëwee dañ wax ne dem lante dikkalante bi ak jokkalante yi mooy tax li nga xam ne rek moo di mbas mi daal di law ba tax na ñi ko njëkkee mooy ñi nga xam ne rek ñoo di réewi tugal yi daal di rek tëj seeni frontière tëj fépp foo xam ne rek man mënees na fa jaar ba génn rek wala dugg seeni réew yooyu ñu daal di ko tëj waaye dama gis ne Gambie Sénégal pour tëjante frontière man pour man loolee warul warul woon a nekk lu ñu war a def ndaxte lu tax ma wax ko dëgg la. bu fekkoon ne mbas mi dafa tàbbi dafa yemoon Sénégal rek ak seegul Gambie wala Sénégal rek la nekkoon ak seegul Gambie wala ak seegul fenn ci àdduna bi lu dul Sénégal waaw bu ñu neexee ñu ne nañ tëj diggante Sénégal ak Gambie ngir rek mana dakkal mbas mi foofa ba nga xam ne suñu mbokk euh, gambien yi euh, du fi rekk daal di dugg wala bu fekkoon mbas mi gàmbi rek la dugg dañuy wax ne nañ fexe daal di rek ñàkk li nga xam ne moo di frontières yi ba nga xam ne rek euh, mbas mi du daal di rek law ba dugg fi nga xam ne rek moo di Sénégal waaye comme que mbas dafa wàccandoo ci ñaari réew yëpp man li ma gisoon mooy ñu fexe rek joxante loxo ñaari nguur yi xool nes def ba rek xeexandoo ko waaye tëj frontière loolee warul woon li nga xam ne rek moo di mooy li war suñu nguur gi waaye boo xoolee nag loolee li lay joxaat yaakaar mooy ci diggante diggante Sénégal ak Gambie nit ñi fi nekk bëggante gi ñu bëggante ak boo fi ñëwee doon gan ndax damay seetlu moo xam ngi muy Sénégal nga gis fa Gambien bu fa nekk ak ni ko sénégalais di tatagalee ni ko sénégalais yi di bëggee nga ñëw tamit gis fi sénégalais bu nekk biir Gambie ni ko Gambien yi di tatagalee ni ko Gambien yi di euh, bëggee loolu daf lay wan rek ñoom réeréwuñu benn yoon ndax ku nekk xam na ne euh, ay mag ak ay rakk leen loolu moo rek daal di am euh, tubaab bi saay-saay bi rek moo daal rek ñëw daal di xaajale ñaari réew yi waaye ñaari réew réew yi benn la ndaxte boo xoolee Gambie nu mu frontière ak Sénégal amul benn réew bu ko frontière ak morom ka loolu Gambie rek la am te lii rek firndeel li mooy firndeel li mooy boo demee biir Sénégal. lan lan lañ làkk yañ fay làkk mooy dañ fay làkk soose làkk fa joola làkk fa wolof làkk fa li nga xam ne moo di alpulaar làkk fa séeréer nga ñëw biir Gàmbi tamit noonu la dañ fay làkk li nga xam ne rek moo di soose làkk fa li nga xam ne moo di joola làkk fa li nga xam ne rek moo di wolof ak li nga xam ne moo di séeréer làkk leen wutale rek mooy ni ma la ko waxee mooy bi ndax fële dañuy làkk li nga xam ne rek moo di français fii daal di làkk li nga xam ne rek moo di anglais loolu rek moo andi li nga xam ne rek moo di euh, wuteela gi fa am te wutale googu wax naa la ko sànq nee naa la tubaab yi ñoo ko rek daal di euh, waral waaye loolu yooyu warul tax nag man ñi may gën a wax rek mooy population Gambie ak population Sénégal maanaam nitu sénégalais yi ak nitu gambien yi ñoom euh, bu leen dara yóbbu ba ñuy jéem a euh, xiiroo bu leen dara yóbbu ba ñu jéem a ŋaayoo ndax lu xew gàmbi euh, day xew Sénégal lu xew Sénégal day xew gàmbi te yar yàlla na rek na fi na fi jàmm rek di daal di rek xew parce que lu ko waral mooy xoolal bi nga xam ne Sénégal tëj na frontière am ñaata Gambien ñoo fa nekkoon bëgg ñëw tabaski si euh, te ñëw tabaski lu dul rek ñu jaar ci yenn yoon yi nga xam ne euh, bu ñu leen fa jàppee euh, mënees nañ cee am li nga xam ne rek moo di problème xoolali it ñaata Gambien ñoo nekk biir Sénégal ñaata sénégalais kay ñoo nekk biir Gambie te biñ tëjee frontières yi ñu bëgg tabaski ji mënuñoo tabaski loolu rek moo lay wanal ne lu wokku rek Sénégal day xóori fi nga xam ne rek moo di Gambia. kon nag euh, loolu rek mooy mooy suñu temu tey ngir rek waxtaan ci waxuñu ndex dañoo xam wala ñoo leen gën a xam ndaxte euh, télé moo ni mel euh, ki lay seetaan amaana moo la gën a xam fuuf li nga koy li ngay wax. waaye yàlla moo lay nattoo yow wax ba nga nekk rek ki nga xam ne yaay nekk ci télé bi di wax waaye ñi toog seen kër yi toog ci seen. cabinet yi wala fi nga xam ne rek moo di seen euh, saal yi di seetaan ñoo lay gën a xam sax yow li nga bëgg wax waaye euh, di si waslu àq rek ndaxte ñun ñëpp ay doomu Gambien leen euh, ñun ñëpp ay doomu Sénégalais leen kon dañuy fexe rek ba diggante bi gën a ñoŋ diggante bi gën a ratax diggante bi lu rek lu dul rek lu koy suukar wala lu dul rek lu koy gën a rataxal rek duñu ko rek daal di wax te waxoon naa la ko sànq nee naa la média dafa am doole ci li nga xam ne moo di wàllum développement wu réew maanaam di euh, media daf ci am doole bu baax a baax a baax kon ñi nga xam ne nag ñooy euh, liggéey ci media yi ñu ci demee ni journaliste yi euh, ñu ci demee ni nga xam ne ñoo di animateurs yi maanaam ñi nga xam ne ñooy DJ yi ñoo ñëpp dañ ci am rek rôle ñu ci war a rek jouer ndaxte dama ne media bu defarul waruta yàq ndaxte boo xoolee euh, biir Gambia Show li ko tax a jóg rek mooy lépp loo xam ne soxal na Gambie rek ñu daal di koy waxtaanee te comme nu ma la ko waxee woon rek tey ji jii dafa nekk benn émission euh, benn euh, show boo xam ne dañ la koy defal bu softu rek nekkul show boo xam ne dafay extraordinary dafay softu rek ndax dañ koy bañ a ñàkk a def ndax lu ngeen taamu la lu ngeen bëgg la faaw rek ñu defal leen ko waaye nu mu daan amee nga xam ne dañuy toog fii ñaari nit di ko di ko di ko prison moo xam muy man ak keneen wala kenn ñeneen ñaar yoo xam ne sax du man Euh, bindoo ndaxte tey jii man mën naa ko def ak Aïda wara ma def ko ak euh, ay satu Koli wala keneen ak keneen ëllëg mën naa ko ñàkk def keneen ñëw def ko waaye boo lu ñuy bañ rek mooy ñàkk koo def ndaxte dafa dem ba ñi nga xam ne rek ñoo di Gambien yi jël ko euh, bëggal ko rek seen bopp waaye thème bi nga xam ne nag wax nañ ko mooy thème waaye di ba tey rek lu ci biir Gambia dinañ waxtaanee li nga xam ne rek moo di ndogal bi nga xam ne xalifu général bu Tiwaawoon jël na ko xam lu tax ñu koy wax parce que soxal na Gambien yi ndax am na Gambien yu nekk fii ay euh, tijaan lañ. gàmmu ji dañ daan jógee fii dem ba Tiwaawoon gàmmu siyaare ji loolu yëpp nañ ko waxtaanee lu tax ren euh, daal dinañ ko rek fomm euh, ñu bari nag ci biir fomm bi dañ ci xaw a juum ndax ñu bari niñ ko jëlee ak nu mu demee demewu ni parce que sëriñ bi nekkul ne dafa wax ne daf ko cancel. kansalu ko lan la def mooy euh, niñ ko daan célébrité loolu la wax ne duñ ko ko defee maanaam nit ñi di jugee Gambie jugee France jugee fu ne ci àdduna bi ngir dem Tiwaawan amalee ko fa loolu la wax ne ren jéggal na taalibe yëpp ku nekk na nga toog fa nga nekk maanaam taalibe yi nga xam ne ay gambien la ñu ngi biir gambi fii nañ toog biir gambi toog seen kër yi bu bisu euh, gàmm gi jotee ñu daal di rek gàmmu daal di màggal juddug euh, yonent bi sallallahu alayhi wa euh, moo xam Sénégal nga nekk it nekk biir dakaar nga toog dakaar defee ko fa même boo nekkee biir Tiwaawan fi nga xam ne sax fa lañ koy màggalee toogal sa biir kër defee ko fa lu mu bañ mooy bëggul benn dajaloo am fi nga xam ne rek moo di biir Tiwaawan mu lool loolu taalibe yi am na ñu ko gisee ne lu baax la ndaxte boo nekkee euh, njiit wala ngay jiite da nga war a xool euh, ñi nga xam ne ñoom ngay jiite ba bu euh, jël kàddu jotee nga jël kàddu ba bu jël décision jotee nga jël décision boo xam ne doo ci xool kenn doo ci dellu ginnaaw lépp loo xam ne rek day aar askan wi ngay def waaye am na ñoo xam ne it gisewuñ ko noonu ba tax na sax am na ci xibaar yu ñu jot. njiital gi nga xam ne moo di Moustarchidine wala Moustarchidaat di nga xam ne rek moo di Serigne Moustapha Sy di di doom si Serigne Cheikh Al Maktoum moom rek daal dina xam xamle ni moom dina daal di màggal li nga xam ne moo di bisu gàmm gi foofee ca Tiwaawan ci euh, fi ñu naan champ de course yooyu yëpp te moom it am na ay taalibe yoo xam ne ay gambien leen yu bari yoo xam ne mu ngi fii ndax moom at bu jot day ñëw Gàmbi ren jii corona bi rek moo tax. mooy mbas mi moo tax ñëwul Gàmbi waaye at bu yàlla sàkk daraan ñëw Gàmbi euh, fi nga xam ne rek moo di Banjul foofu ci aj 22 July bi euh, dafa benn ndaje bu mag waxtaan ak taalibe mi nga xam ne ñu ngi biir Gàmbi léegi nag yooyu nan la ko taalibe mi daal di rek gisee mu nekk it beneen affaire boo xam ne dinañ ci gën a yaatal waaye comme ni ma leen ko waxee tey ji day nekk benn soo bu soft maanaam euh, soobu soft lay doon euh, point yi dañ koy rek daal di laal tuuti rek mais duñ ci xóotal euh, ndaxte li ko sabab rek mooy li ma leen waxoon rek soo bi dañu doon bañ mu am rek ndaxte ñëpp xam nañ ne temps yi nawek courant bi light bi ni muy demee dafa dafa jéggi dayo loolu yëpp waras nañ ci waxtaan tamit ci wàll dañ ci rek daal di ñëw waaye lu ne rek incha allah dinañ leen ko fàggal fi nga xam ne moo di euh, Gambian Talents TV euh, di People's Power ndax euh, ñun nit ñi ñoo ñu fi tax a toog nit ñi ñoo ñu tax a rek di def lu ñuy bëgg a def bu ñu jógee ci loolu nag xam naa ñu bari ñu ngi naan Gambian Talents TV am na gan. yi am na gan waaye yéen ñi nga xam ne baaxoo ngeen di topp suñu ay programme war ngeen ma miin ndaxte yàgg naa di def ay xibaar yoo xam ne dama koy defee. fële ca Sénégal di xibaar yi wolof yoo xam ne euh, day soxal Gambien yi nekk fii euh, ma koy def euh, ci rek télé bu mag bi la di Gambian Talents TV waaye loole moo tax man maa ngi di présenté waat sama bopp maanaam di leen wax man may kan man maay Mouhamed mbay Garmi Euh, nekk euh, intense waaw euh, di di jàngar rek comme ab taalibe file ci Gambian Talents TV nekk ab taskatu taskatu xibaar di journaliste file ci Gambian Talents TV am nañ fi it nag ay programme yu bari incha allah namm nañ ko tënk nañ ko te dinañ ko namm jukki ak yéen ñi nga xam ne yéenay suñu ay déglukat yéenay suñu ay setaankat yéenay suñu ay ñi nga xam ne rek yéenay ñuy riit fu nekk. kon yéen yéen a tax te incha allah euh, li ma leen di wax rek euh, bu leen xaddi euh, bu leen give up toog leen li ci kanam rawli ay gët te li duuf ci nag yëpp xajul ci cin li waaye wolof dafa ne bu ñu ko yàggee togg rek dina ci xaj di toggal ay programme yu ama am solo ñu ngi leen di toggal ay soo yu ama am solo yoo xam ne incha allah mi ngi ñëw ci yéen ndax Gambian Talents TV euh, li ko tax a jug mooy euh, liggéey li ko tax a jug mooy lépp loo xam ne soxal na Gambien si rek euh, incha allah dinañ ci rek daal di dox wax ci ba gis ne lépp rek mi ngi ci lool waaye laata rek may tàggoo di leen bàyyeek ci ñu ay programme ngeen wéy di ko seetaan rek li ma leen di mujjee waxaat rek mooy que mbas mi jógagu fi. Euh, mi ngi fi muy euh, coronavirus euh, mi ngi fi ba tey mi ngi lëmbee àdduna ndaxte boo xoolee réew yu gën a mag yi ci États-Unis d'Amérique muy Amérique fu ci mel ni France ñoom sax déclaré nañ li nga xam ne rek moo di curfew ci yenn ci seen réew yi foofu président bi di Emmanuel Macron euh, moo ko rek daal di déclaré euh, mu foo xam ne dina dem ba euh, fes décembre loolu nga gis ne kon ñun Gambie tamit ñu ngi xool fii ne gis ne ñu ngi xaw a wàññeeku yu bari bàyyi neen ko ñu bari fonkatuñ takk masque ñu bari distance bi nga xam ne moo di social distanciation bi ba tey respecté tuñ ko ko yooyu yëpp mi ngi ci biir waaye di leen ñaax rek ne mas mi mi ngi fii ba tey. mbas mi mi ngi fi ba tey te dafay woy di faat mi ngi lor doomu euh, aadama yi euh, muy fii muy feneen ak muy feneen comme que ñun suñu réew dañ bokk ci réew yi nga xam ne euh, ci ñu bërëbu fajookaay yi taxu ko am doole noonu noonu te ñi nga xam ne sax ñoom la seen bëri bu fajeekaay am doole ñoom mënuñoo dékku mbas mi mastamalaak ñin ñi nga xam ne suñu réew yi des naa am doole ci wàllu paj waaye loolu tamit du ñu tere tax nag ñu dem liggéey ndaxte nit mënul toog rek euh, bañ a dem liggéey surtout ci réew mu mel ni Gambia euh, bu ñu liggéeyul ndax dafa am ñoo xam ne dañuy xëy di taaba taaba ji euh, lu ñuy lekk suba tey ji lañ ko war a dem liggéey am na ñoo xam ne sax añ bi ñuy xëy joxe faaw ñu xëy dem liggéeyi ko soo ko rek mën a joxe waaye li ma leen di digal rek mooy nañ liggéey waaye nag bu ñu tax benn yoon fàtte li nga xam ne rek moo di euh, mbas mi mbokk yi ñu doon déglu di ñu seetaan euh, ci Gambian Talents TV euh, dig leen daje suba ci programme biir Gambia Show wax leen ne dinañ ko defee nu mu daan amee lii dafa nekkoon comme euh, benn rek euh, bu softu rek pour rek wax leen ne euh, dañ koy bañ a ñàkkaa def rek boo gisee tey dañ daan ubbi bu mu jokkoo ji mën a saafanteeg ñi nga xam ne rek ñoo ñuy seetaan waaye tey defuñu ko waaye loolu yëpp rek dañ koy leb rek ba suba ñu defal leen bu am doole bu rek am li nga xam ne rek moo di qualité ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di leen dig daje di leen wax ni euh, wéy leen rek di topp euh, diktelu kër docteur yi ñu daan corona mu dal di fi jóge ñëpp dal dellu ndax boo xoolee secteur artiste yi laal na leen boo xoolee ñi nga xam ne mooy artiste maanaam waykat yi daf leen laal euh, boo xoolee ñi nga xam ñoo mooy képp koo xam ne yaa business même ñi nga xam ne ñoo nekk ci média bi dafa nekk rek média du mos a ndax ñun ñun ak docteur yi moo taxit euh, ku ñu waxul gàcce ngalaam it ñun dinañ dinañ ko wax suñu bopp ndaxte ñun duñu tëj ak lu mu metti metti lu fi mënti am euh, ñi nga xam ne ñoo di journalistes yi dañuy génn jànkuwanteeg situation bu mu mënti doon every situation bu mu mënti doon rek euh, journalistes yi dañuy génn daal di rek jàkkaarloog situation boobu ngir rek mën koo xamal askan wi waaye it duñ leen fàtte benn yoon ndax yéen a ñuy fi tax a toog bul woon ak askan wi journaliste moom it du xam ku mu doon bul woon askan wi journaliste kenn du ko setaan kenn du ko déglu yéen yéen tax ñu ñuy déglu kon nag Euh, di leen jaajëfal di leen wax ni porté bu vingt mbay garmi euh, dina ñëwaat ak yéen ci yeneen i programme waaye laata lool maa gërëm rek euh, sama caméraman bi di Sagnang di ko jaajëfal di jaajëfal équipe bi yëpp maanaam team bi yëpp maa ngi leen di rek jaajëf di leen wax ni very soon mbay garmi dina ñëwaat jërë ngeen jëf.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 doolalal li nga moom Supersonics suma tabaski ren neex na Gamsobis focus with Kaliru Banjang every Saturday from 8 to 10 p.m. You want to know about the Gambia entertainment industry? You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the governance and management of the arts associations. The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them and most importantly, offer solutions. Gambian Talents Promotion the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GCP, WeTap, Nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gathering, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brushes, flyers, t shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also